wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi diin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyaare di ziyaare sunu mbokk sang yu baax yi ñu yàlla baaxe ñu seere ci liggéey bi di dellu siwaat di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi nu yàlla xéewalee ñu fekke woon ko daaw ren ñu fekke waat ko yàlla kàttanal ñu ba ñu mën a toogaat fii jàkkaarloo wat ak yéen di nuyu bu baax a baax jëmm ji nga xam ne donte jëwri ne mi ngi fi moom lañ gën a xàmmee ci barab bi te mooy Sëriñ Fallu Mbàkke teg ca sëriñ Moustapha Lo ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel fii ñuy doon suñuy jëwriñ ak mboolem dong yi ci topp ñu jël nuyoo boobu tegal ñu ko ci loxal sang bi nga xam ne mooy jëwriñu bis bi fii ak mboolem ahlu Mbàkke ak Mbusoobe ñu ngi leen di ziyaare di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kon wax ji mën naa gàtt waaye nii ñaan ngir jëmmi borom bés bi ñu fexe ba bu kenn wax ne déglu leen dañoo bàyyi suñu yitte ñëw ne dañuy màggal maam Moor Jaara borom saam te jàpp naa ne suñu fàttewut li ñu fi indi waruñoo wax kenn nañu diglu kon ñiy sant ñépp di gërëm ñépp di wax ni lii xéewal la goo xam ne yàllaa ñu ko baaxe ñu war koo xéewloo te mooy màggal bisub maam Mor Jaara boroom saam boroom xam-xam yi dañuy wax ne fàttaliku walla tudd gaa yu baax yi jamono buñ koy def sunu borom day wàcce yërmandeem kon nañu ko taatal te teewlu ko sang bi lim fiy wax yàlla na ci yàlla defal ak dégg ak topp waaye ñu jàng ci ne itam ne vidéo bi fi jàll kenn ku nekk ci ñun war ngaa bàyyi xel ne kon nooflaay amul ci àdduna ndax jàpp naa ne su nooflaay amoon jëmm ji ñu doon wax tey ci diggante bi mu feeñ mënoon naa toog jàpp mor sa bañ a sonn guddi bañ a sonn bëccëg waaye dégg ngeen li ñu wax naafila téeméeri ràkk guddi gu ne kaamilu alxuraan loola kon yaakaar naa day dellusi ci wax ju rakkam ju sell ja waxoon te mooy Cheikh naa Cheikh Ahmad al Xadim ne gaa yu baax yooyu daal تجف المضاجع في الليل جنوبهم ناسين ليلى وبشرى ناسين سلمى وليلى بالبشارات kon loolu ñun ñépp ñu mën cee def laxasaay teg sunu tànk ci siraatal mustaqim naka Cheikh Saalih Mbàkke daa waxee yal na yàlla yokk leeram xàq a ji jafe na xëy na yombul ci nun waaye ma istataatum ci kon kenn ku nekk lii ñu seede ci borom saam man ngi cee takk saw la nga àttan nga yenu ko fas yéene dox ak moom tey fas yéene bu set la yokk waaye bu mu wàññeeku kon loolu mooy li nga xamante ni moom a jànge ci bis bi yàlla yàlla yokk leeral yàlla na ko yàlla fayal waaye jëm yi nga xam ne gannaaw bi suñ fortu jaaree sëriñ dàmbaay ak ñi mu àndal ak mboolem fédération agricole bi ni ñu taxawee bis bi wax dëgg yàlla lu rafet na seen jaan wàcc ñi kon ñoo des kon wax ni mën naa bañ a gudd ñu jox sang bi moo tàmbali waxtaan bi ñu teewlu ko te xam ne tey suñu afaada manis afaada rek xéew waaye ki koy taataan ba sàkk ko kooku rek moom moo ci am ñi nga xamante ni moom moom la bëgg yi bu kenn wax ne kenn lañ jiglu waaye wax lu bokkul nag ñu fi indi ku dem ba mën a ko ñàkk bañ a wax nag nga génn nan wax ko kan koy waxaat waaye fii moom kenn ku nekk war ngaa bàyyi te dina fi indi te mooy sàkku si xeewal xeewal nag boo koy sàkku si dina koy xaj waroo koo def kon ñu ngi sant di gërëm si waat di ziyaare ñëpp di baloo ñëpp di baloo kon ñu dugg ci liggéey bi yal nañu yàlla defal ak dégg ak topp salaamallaahi aleykum wa rahmatuhu wa hasbuna allaahu ni'mal wakiil barke borom Tuuba auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala saayiri alanbiyaai walmursalin wa ala alihim wa ashaabihim ajmain wa an taxfir lana ma mada wa fi ma baqiya asalaamualeykum bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaara ci bis bu tedd bii di leen jaa jëfal ci liggéey bu rafet bii nga xam ni mboolem góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp àndandoo nañ ngir taxawal liggéey bii ci jëmm joo xam ni jëmm ju ko jar la waaye di tàmbale suñuy kàddu ci ñaanal Serigne Cheikh Sidil Muxtaar sunu borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér ñaanal Sëriñ Abdullahi Mbakke sunu borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér ci keppaaru jëmm ju tedd ji ñuy waxtaane waaye di ñaanal kilifa diine yépp di ñaan lay seen yéene ci liggéey bi ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu matal ko te na ànd koog nun taalibe yi di ziyaare bu baax ci jotaay bi sëriñ Bachiru Mbàkke mu mel ni bu ñu ko tuddee rekk ak jëwriñ yi nekk ci wetam dana yóbbu yóbbaale moo leen kilifa yi fi nekk yi sëriñ Bachiru ñu di ko ziyaara bu baax mook sëriñ Fallu Mbàkke bi nga xam ni itam yëpp mooy taxawal lu mel nii lëggéeyal sëriñ Tuubaa mën a bàyyi xel bu baax li ñu bokk ñun ñëpp mu di Serigne Touba. waaye di siyaare suñu wëllëri wi nekk suñu Serigne Moustapha te xam ni ba ñu fi dalee ñëw ba ndëgë ni suñu borom boole nu ñuy teg nag suñu ziyaar ak suñu nuyoo ci moom ngir mu jaarale ko ci Serigne Bara Thiam. ak sëriñ daam ak sëriñ Ousseynou jaan mi nga xam ne mooy sama jëwriñ ci barab bi dox sama diggante yéen ngir nag mu mën a yegg ci mboolem bokki taalibe bi yépp ku ci nekk fa nga nekk ziyaar nan la jox nan la loxo feddali nañ bu baax sunu kóllëre gi ñu yàlla boole ndax diiwaan bi ma toog di waxtaan ci Italie mooy diiwaan bi mu ëpp ay wóllëre li ma fi am ci ay wóllëre amuma ko ci benn diiwaan ci Italie loolu la yàlla dogal kon maa ngi feddali bu baax sama kóllëre ak yéen di ñaan Serigne Touba téyal nu ko mboolem kilifa yi fi teeg yépp ñu ngi leen di ziyaar bu baax li ñuy def nag mooy dal di sóobu ci waxtaan wi li ëpp solo ci waxtaan wi sax mel na ni vidéo bi ñu doon seetaan léegi te soxna ndey Fary réaliser ko génn na lu bëree bëri ci dundu jëmm ji ñu doon waxtaane di rafetlu nag initiative boobu waaye di ci gërëm woy juróom di sëriñ Ousseynou ndax xale bu jigéen bu juddoo ci réew mi toll ci war a mën a am ay xariti tubaab war a mën a fo war a mën a nekk ci ay caaxaan ñu nàmpatal ko ci sëriñ bi ba mu jug di gëstu ci sëriñ bi loo xam ni tey ñu bëree bari dolli ko nañ ci moom ndaw yépp war nañu am taxawaay bu mel noonu waaye jaboot yépp war nañu xiir tar seeni doom seeni xale seeni jarbaat ci ñuy dund ci sëriñ bi di gëstu ci sëriñ bi ndax loo dundul mënu laa yitteel kon nag noo ngi gërëm bu baax soxna si nga xam ni moo doon taxawu liggéey boobu ci vidéo bi li ñuy def nag mooy dañuy daldi rek soobu ci jëmm ji nga xam ni moo waral waxtaan wi di sëriñ Maam Mor Jaara sëriñ Maam Mor nag balaa ñuy waxtaan ci moom arab dafay seexlu ngay waxtaane nit te indiwoo tuuti ci moom mooy kan nu mën a wax ni kon mooy ki gane jamono 1850 ci Mbàkke Bawol way juróom mi ngi tudd Mamor Anta woy way juróom wu jigéen mi ngi tudd soxna Mariama Buso ni ñu ko xame mooy magi mag mu nekk jëmm joo xam ni dundam gépp mi ngi ko jeexal ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit nag booy waxtaan ci moom naam ngay wax ni ku baax la woon ku mënoon a julli la ku mënoon a woor la loolu yépp lu baax la ndax soo dee tudd nit di fàttali ko ay jëfam ngay wax mën a jullee mën a wooram lu baax la waaye li ëpp solo ci booy waxtaane nit nga xool ana ban tomb la bàyyil jullit ji ana wan yoon la xàll woo xam ni ku ñëw jaar ca mën a jariñu loolu mooy li ëpp solo ci li ñuy waxtaane ak jëm dafa am nag benn joxoñ bu jëmm jii ñuy waxtaane di Maam Moor Jaara joxoñ benn jëf bu mu jëf benn joxoñ bu mu joxoñ benn bi boo xam ne tey képp ku bëgg a jëriñ ñu àdduna ak àllaaxira ci joxoñ boobu ngay tënk loolu mooy li ëpp solo Tuubaa du am ndax bu ma ñuy wax mufti bi joxoon bu mu ñu joxoon ku ñëw jaay li nga bëgg mën nga ko am addina mën nga ko am àllaaxira joxoon boobu moom la nangu dogal bii loolu mooy jëf ji gën a ci Maam Mor Jaara dogal bi mooy lan mooy nangu gi mu nangul Serigne Touba lan mooy kon ak nangu kon boo koy tënk lan mooy nangu nangu mooy al iradatu al iradatu mooy lan mooy ak taalibe kon bu ñu duggee ci Mamor Ant Mamor Jaara mooy kan ba ñëw ci loolu nga xam ni moom la nangu muy dogal boobu muy nangul sëriñ Touba te tey ñun ñëpp ñu war a xam ni nit mënta gën a rëy rëy rëy ba gën a rëy Mamor Diarra ndax magi sëriñ Touba mu bokk ak moom ndey ak baay nit mënta gën a rëy jëmm jooju ndegam moom ci darajaam jooju ci martabaam boobu. mu xool mbir ba nangu ko joxoñ ko ku bëgg jariñu boo sóobuwul ci loola doo mën a jariñu tey doo mën a jariñu ëllëg kon loola di ak taalibe mooy doon temu waxtaan wi waaye kan mooy Mame Mor Diarra nañu bàyyi xel ni Serigne Touba junj na ba tàyyi junj na ba tàyyi naam lépp mi ci loxo moom Serigne Touba waaye juñu na ba tàyyi ni jëmm nga nee joo xam ni ku bëgg saw yoon gaaw nang fa jaar yi muy Maam Mor Jaara dafa am benn bis muy waxtaan ci baaxu Maam Mor Jaara di ci waxtaan di ci waxtaan ci ngëneelam ba mujj soxna Awa ba sa jug ni ko Mbàkke yow da xanaa kii ngay waxtaane xanaa mooy yónnante bi mu ne ko ndaxam day yónnent bi kenn la ci kaw suuf du moom waaye bu ëllëgee day balaa kenn am lu baax daa jaari fa borom saam Mamor Jaara Sëriñ Tuubaa ci mat gi mu mat dafa ñëw war a nekk koo xam ne dafa war a liggéeyal yàlla liggéeyal yónnent bi liggéeyal ay kilifaam yiy dox ci kaw suuf bu dee kilifaam gi ñuy wax Maam Mor Anta di way juróom liggéeyal na ko liggéey bu mat sëkk ndax nekkoon na ci daara ji jiite donga yi ki toppan ci moom di sëriñ sàmba Diop sàmm ñoom ñaar ñuy ñaar ñi nga xam ni ñoo jiite woon daara ji liggéeyal baayam ba am ngërëmul baayam liggéeyal na way juróomu jigéen ba am ngërëmam diir bi ñu fi bokk nekk mu des genn kilifaam muy Maam Mor Jaara te gannaaw sa baay sa mag mooy sa kilifa Sëriñ Tuubaa war a dem ci keppaaram liggéeyal ko war ko sukkal war ko raamal war ko liggéeyal mu tombeek sunu borom dénk ko liggéey bi bi mu war a liggéey ci jaami yàlla yegsi ci moom ba mu xat-xat goo xam ne mënatul dem ci genn keppaar ndax xajatul ci genn keppaar bu dul keppaaru Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu am ngant am gàllankoor waaye taxul liggéey bi wàcc ko tax mboolem mag ñi nga xam ni ñoo ko waroon ku ci nekk daana la dénk di la digal ngay dem ci borom saam di ko liggéeyal moo tax am na benn bis dafa xëy benn bis woo rakam ba mu ñëw muy ku ñuy wax Cheikh Amadou Ndumbe Xabaan mu ni ko maag yow ñoo bokk baay ñoo bokk lépp sama rakk nga mu ne ko wér na mu ne ko nit fu mu mënta nekk bu jëlee dara itam dugal ko fa mel na ni ma nga fa dama waroon a dem ca borom saam di ko liggéeyal ba am ngërëm moom ca tënku naa mënumaa dem ma bëgg nga dem ca keppaar ga lu fa aaji woo ci tërbiyee nag ma ko fa defal ba mu gërëm la su la gërëmee gërëm naa la yonent bi gërëm na la sunu borom gërëm na la fukki at yi yàlla la fa Cheikh Ahmad Bamba Xaban def fukki at fukki at yoo xam ni liggéey boo xalaat rek ci tërbiyee sëñ Ahmad Bamba def na ko ci kër borom saam daana soq daana wal daana root daana taxan daana buub su jigéen ñi masaan andi soq bi teg ko ci kees gi dem mu xam waxtu wa ñëw jël soq wal def lépp yóbbuwaat ko ca kees ga teg ko fa delluwaat ci liggéeyam jigéen ñu ñëw jël su guddee mu jël bañuwaaram dem di rooti bandaay yëpp fees su bëccëgee muy buub keppaar yëpp ak kees yépp ba def fa fukki at boroom saam woo ko sant ko gërëm ko bindeel ko leetar mu door a dellu Serigne Touba noonu la ko doon sante ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall noonu la ko doon sante Serigne Fallou Mbakke noonu la ko doon sante maam Thierno Ibrahim noonu la ko doon sante mboolem gaa yu baax yi ko waru ñëpp ci na ngeen ma fonkal sama mag ju baax ji moo tax bi mu sancee saam moom borom saam. Sëriñ Tuubaa dafa woo Sëñ Fallu moom ñëw ni ko na dem ca dëkkam boobu yi ñuy wax saam jumaam jooji nan ko ko defaral booba sàkket moo xew ngeen déglu bu baax ci ngay xame dara jeey boroom saam Sëñ Fallu bi mu ñëwee au mu ànd ak taalibe bi jox leen ndigal ñu dem wuti ga tax déedéet moom Sëñ Fallu ci boppam moo doon wutal boppam gattax gi di wutal boppam xer yi di ko sàkkatal boppam gasal ko boppam defar lépp ci loxol boppam ñu wax ko loo ci jublu mu ni dama xam li nekk ci liggéeyal borom saam li ci nekk ci ay ngëneel ak mbóot ni ma ci son borom dig ci sant gi ma ko sama baay bu baax bi sant muy Serigne Touba la ma ci yàlla nar a defal benn loxo moom ma ci doy man fàllu mooy sama loxo bopp bii ku toll ni sëriñ fàllu nag ku mu dem ci sa keppaar di la liggéeyal ci loxol boppam mu jëm jëmm ngi noonu joo xam ni yeyoo na ay malaayika di wàcc di ko liggéeyal moo tax bi ñu demee ba jamono soppiku ci la ñëw tabax jumaa ji defal ko ko àllarba ngir màggale ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko gis nga borom saam bu ko soxna jaara jurutoon Maam Moor Anta Sali meññ ko bokkut ak Serigne Touba dara cër bu ñu ko tuddal rek yeyoo ko ngir ak mën a jaamu yàlla doo gis ku mën a jaamu yàlla ku mel ni borom saam ñi daan nafila téeméeri rakka da leen di wàññi ci baaraam la ko dale ci aadama ba fii ñu toog di waxtaan góor yàlla yi saxaloon la téeméeri rakka da nga leen di wàññi ciy baaraam lim bu néew la borom saam bokkoon na ci moo tax sëriñ yu tuddewoon ko rukaa bu lay ñi nga xam ni dañuy war guddi guddi jot mu dem tëdd ci lalam sàngoo malaanam kooku guddee ko war waaye ki nga xam ni ñëpp dañuy tëdd mu jàpp ba sell fanaanee julli ba ba set kooku moo war guddi mooy boroom saam dafa am ñaar yoo xam ne doy sëkk gi nit di am ci yàlla yaara nga yoo xam ni mën na la koo may muy naafile guddi ak togg ay berne di ko joxe ci yàlla tax waykat ba nee na wa luqmatun tasuddu matnu jaayi afdalu min binaay alfi jaami benn tib boo jël jox ko nit mu jariñoo ko moo gën tabax junni jumaa benn jumaa boo ko tabaxee suñ borom tabaxal na kër ci aljanna benn tib nga jox ko nit moo gën tabax junni jumaa borom saam saxaloon na guddi ku jot ñu yëwéñal ab gàtt mboolem njaboot bi yëpp jëfandikoo ci saafarawu ci waaye bu ñu noppee ñu ngi koy reesal nag ci tudd yàlla ñu ngi koy reesal ci ay julli ñu ngi koy reesal ci jàng alxuraanu karim loolu nag da gis ni daf koo nuroo lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon lool habitude bu guddi bi soree mu yee waa këram ñu ànd ak moom di màggal guddi gi di jaamu yàlla di tudd yàlla di julli ba fajar jot loolu dangay ngay gis bu baax ni ko ci borom saam nuroo xam naa xale yi cëppi cëppi bu ñu ci mënoon dimbale tuuti ñu ñaan rek soxna yi ku ci nekk mu woo doomam téye ko ci wetam ngir ki ñuy waxtaane amuñu ku ko gën a kawe ci yoonu murit di borom saabu kon ñu ngi ñaan ak déglu ak teewlu képp koo xam ne daal may nañu ak déglu ak teewlu waxtu wu yëkkatee soxlaam yàlla na ko Serigne Touba déglu ca soxla soosa kon borom saam amoon na yaari cër yoo xam ne kenn amu amoon na cëru zahir doo gis ci kaw suuf ku am cër boobu ci kaw suuf amoon cëru baatin boo xam ni doo gis ku ko am ci kaw suuf te yaakaar naa su ma ko waxee dangeen ngeen ma ko nangul cëram ci zahir bi nga xam ne moom rek moo ko jagoo moom sël moom képp moom dong moo boole yett yi jàngal Serigne Touba digal sëriñ Touba jiite julli sëriñ Touba moom rek moo ko jagoo gannaaw maam Mor mi nga xam ni way jóg bokkul mel moom moo jàngal Serigne Touba digal Serigne Touba jiite julli Serigne Touba cër boobu moom rek la ko yàlla jagleel. moo tax Serigne Touba mas na ko wax ni ko am nga lu kenn amul mu ne ko Mbàkke lan la mu ne ko luy mbindeef ci kaw suuf waxuma nit de al laa wax waraa waraa nag lu dul yàlla yaa ci biir luy mbindeef ci kaw suuf man sëriñ Touba lay déglu lu ma wax loola mooy te mboolem luy jox ci kaw suuf yow képp lay déglu yow Mame Mor loo wax ma def loola loolu mel ni yow yaa am ci kaw suuf mu ndax cër gën naa rëy loolu déedéet doo mës a gis cër bu rëy loolu cëram bi nga xam ne kenn amu ko ci baatin góor yàlla yëpp dañuy fanaanee julli di yendoo woor di def lu nekk xemmanteef bi gën a rëy ci ñoom moo ñu jàkkaarloog Moustapha sallallahu alayhi wa gis ko gisul zahir nag kooku moom beneen martaba la moom beneen mbir la moom nekkoo ci nelaw nga ni jàkk Moustapha kooku moom beneen martaba la waaye gis ko rek ci biir ay nelaw wala jeneer nit juddu na di jaamu yàlla di ko ñaan yàlla di ko ñaan yàlla ba xëy génn àddina amul loolu borom saam rek moom la Moustapha masa sàkkoo gis ci kaw suuf ci li ñu xam ci histoire Sëriñ Tuubaa ko masa woo ci njaaree mu ñëw mun ne ko dama am gan ngoo xam ne de def laa bëgg a gis mu ne ko bismillah ñu toog tuuti mu yóbbu ko ci néeg mu gisante fa jëmm ju weex tàll kaalawu bi ñu amee ab sëriñ bi waar ko ci beneen barab ne ko ndax néeg boobu ni nekkoon am na koo fa gis mu ne ko waaw mu ne ko Moustapha sallallahu alayhi wa sallam la moo sàkk woon ni daf laa bëgg a gis yow mu dar gémmiñam ne ko ah Ahmadou lii rëy na de mu ne ko moo ni day li muy rëy rëy nee na mboolam turandoo mi yaa ci gënal allahu akbar ki ñépp bëgg a gis moom kenn la mas a gis ko muy borom saam naka noonu jibril alayhi salaatu wasalaam mas na ñëw ci sëriñ tubaa ni ko man day ni nga toll ca yàlla ak mbartaba bi nga am ku ñu wax ni mooy sa kilifa ci kaw suuf kooku de bëgg naa koo gis mu defal ko lan ko defaloon ca Moustapha woo ko mu ñëw mu mu wane la ko moom mu gis ko waaye dara jomb ko moom borom saam dara jomb ko kuy naafila téeméeri rakk gudd gépp nga jox ko suñu borom di xiir sa njaboot ci ñu jaamu yàlla kooku buñ ne laa Moustapha na laa gis xel mën na ko nangu bu wér wér kon borom saam jëmm la joo xam ni Sëriñ Tuubaa nag dafa demoon sax ba egg ci lu mel ni sart la lu ma dafa xawoon a mel ni sart képp kuy jóge mbakke di ñëw njaareem ci moom di ko siyaare ji soo jaaroon fa borom saam soo ñëwee boo ko ñëwee li mu lay njëkk a wax mooy ana ana sa ju baax ja soo ni koo gisul ko di ko xam di ko xam ci xar kanamam waaye boo ne koo jaar naa fa mu ngi lay nuyu da ngay gis mu mu ma yàlla xar kanam bu leer nañ ñi ànd ak mbégte lool ci jaar gi nga fay jaar ba maam Cheikh Anta sax wax nañ ni mujj na moom yoonu toll ko def waxtu wuy jëm ci sëriñ Touba dana jaari fa borom saam bu ñu yeggee balaa jàmmante bay jeex rek mu ne ko borom saam nuyu na la Serigne Touba bëgg li ci gën a yéeme nag mooy ak borom saam ku ci nekk dafa am lu mu ngi jàngal borom saam dañoo jàngal nangu ab dogal sëriñ Touba jàngal nu. fan la ñuy teg kilifa ni ko vidéo bi waxal sànq su ma saa ñëw ne ndaw ndaw li bu ñëwee day ñëw toog rek bam na ko ndongale lu doonoon say tànk mu ne ko ku tedd ki de moo ma yónni nee na boo feexee soxla woon na la mu xam li mu bëgg a wax dal di jug te daana ko wax ni nag bu ngeen di ñëw bu ko jiitu ba mel ni dama ko yàkkamti su ma saa ñëw Serigne Touba day jël jar bi lalal ko cërale ko ko jox ko mu jël cër bi delloo ko ko ndax xam na ne moom Serigne Touba mooy xut bu samaan mooy xawsul waraa mooy Moustapha ci kaw suuf mu delloo ko ko sëriñ bi delloo ko ko ñu koy gigante ba ku ci nekk day mujj sax ñu bàyyi fajar ba toog fi suuf sëriñ Touba ñuy jàngal fi ñuy teg kilifa moom ni mu toll su mënee wàcc. bay toogal ci suuf Maam Mor Jaara mi ngi ñuy wax fan lañu war a teg kilifa kon kilifa loo ko féete féete kaw moo xam ci wàllu alal la moo xam ci wàllu xam-xam moo xam ci lu mu mën a doon sa kilifa sa kilifa la jox ko cër bi nga ko war a jox Serigne Touba waaye moom Maam Mor Jaara jàngal nañu ni nangu dogal mooy ki la gën a jege yàlla te suñu borom def ci moom lu mu deful ci yow nga nangul ko loola loola jàngal nañu ko kon yàlla nañu yàlla fayal Mamor Jaara ni mu demee nag jàngal nanu ni looy bañ dee fekk la ci bu ko faral di def yow mi may déglu lépp looy bañ dee fekk la ca bu ko faral di def li mu baaxoo woon a def guddi ku jot téeméeri ràkka sax ca guddi ak bëccëg bis bu sat téeméeri ràkka guddi gu jot genn guddi la ray gàtt jox njaboot gi ñu xewlu ba seen xol sedd ñii mu jox leen ay dog ñii turi yàlla ñii ne ci naafile ga ñii ne ci alxuraan ja naafila téeméeri rakkaam fajar jot mu dem di waaj di jàpp fekk waxtaan na ak ñoom daan boole ci su noppee waxtaan ak ñoom delloo leen ci yàlla yónnent bi gën leen a dénkaat Serigne Touba di leen wax ni kii leen dajale dajalewu leen door a wutit pay dafa am pay ba nopp dóor leen a dajale mu waxtaan na ñoom ba noppi ñu leen xanaa guddi tey da neenut ñu ne ko dee leen mbàkki guddik tey kay wax dëgg yàlla am neenul mu ni xanaa guddik tey de liñ man lépp defal nañ ko suñu borom ñu ne ko waawoo Mbàkke mu ne kon may leen ma ma yeesal waxtu ñëw ñu julli fajar fa mu demee doon waajala di yeesal njàpp ma fa la ko sunu borom moomee allahu akbar dundam gépp ci jaamu yàlla la ko jeexal ba sunu borom jële ko ci moo tax bi Serigne Touba yebalee Serigne Mbacke Bousso daf ne ko boo demee nit bu fi génnee àdduna buñ koy denc danañ seere ci moom benn seere laa la digal na ko seere ci moom sëriñ Mbacke mun ne ko Mbacke mu ne ko boo demee na nga wax mbooloo mi ñu leen keroog ba ñu dencee Moustapha ba bisu tey ku tedd ni jëmm ji tëddaatul ci kaw suuf Serigne Touba waññee ko seere ni Serigne Mamor Diarra ak Serigne Mbacke Kajoor ñooy ñaar ñi nga xam ne bi ñuy génn àddina yóbbaale woon ak seen mbokkum jullit mbokkum maanaam doomu aadama yóbbaale woon àq ci yàlla amul benn bakkaar bu dox seen diggante suñu borom bu ñu yóbbaale amul benn àq bu dox seen diggante doomu aadama bu ñu yóbbaale ñaar ñooñu rek la ko suñu borom jagleel c'est normal nag buñ la waxee kan mooy borom saam c'est normal moo tax kon borom saam. jaamukatu yàlla la woon ku woyof la woon ku baax la woon ku bëggoon nëbbutu la woon pourtant manoon na day bu génnee di wane ni mooy magi Serigne Touba di ko wane ci waxam ci jëfam di utiliser taalibey Serigne Touba yi di fés mais yitteelu ko woon Serigne Touba ci sama njëlbeen wax waxoon na soxna Awa Bousso bu ëllëgee. lu nit di am fa sunu borom kenn du am dara lu baax lu du da jaare fa borom saab kon mbirum dëkk sunu borom da koo lëm ba ëllëg moo tax jëmm ngi noonu joo xam ni jàngal nañu ni ku ku kawe la wàcce boppam ku fees dell woyof toyyu daf lay nuru sax Seydina Omar def lay muru sax moom maam Mor Jaara Seydina Omar martaba bi amul amoon ak daraja ji ak ni mu wàcce woon boppam kenn du maam Jaara moo tax joxoñ boobu mu ñu joxoñoon muy nangul Serigne baax loolu mooy doon beneen xaaju waxtaan bi nangul Serigne Touba lan mooy nangul Serigne Touba tënkal ma ko ci ak taalibe lan mooy ak taalibe soo ma jëbbalee say nopp jëbbal ma sag xerawlu dinaa la dolli tey ci lu wér wér ci lan mooy ak taalibe ak lan moo koy maye bul fàtte ni ak taalibe lu ñu war a jàng la gis nga ministre bi ni jàngee ministre jël bant bi lii taabal bi mu nekk bant mu jël ko yett ko ba mu jekk mu nekk taabal menuisier bi ni muy jàng ñu jox ko weñ mu yett ko ba mu jekk mu nekk bunt menuisier bi tailleur bi ni mu jànge ñaw ñu jox ko mbubb mu ñaw ko ba mu am ay loxo mën a koo sol noonu la taalibe bi war a jànge ak taalibe xam lan moo koy may ak taalibe loolu yaakaar naa ni incha ku ci amuk teewlu te déglu danañ ci ñëw bu baax a baax ak taalibe dafa am solo lool loo mën a am ci kaw suuf boo amul taalibe amoo dara waaye loo mën a ñàkk ci xooy-xooyu àddina soo xasee am taalibe ñàkkatoo dara Sëriñ dafa nekk ca gànnaar am doomam ji ñuy wax wala mu am wëllëram bu ñuy wax Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya am doomam ju jigéen ju jàng alxuraan ba mokkal bind kaamil ñëw jox ko baayam Cheikh Sidiya Sëriñ Cheikh Sidé wan ko kaamil ni ko moo ni lii de sama doom ju jigéen moo ko bind di ci ndamu xam nga doom ju jigéen bu bu bind kaamil yombul kon c'est normal mu ndamu ci Serigne Touba xool ko ni ko akasa ah lii de am na solo lool waaye man Ahmadu de jëf ji li muy rëy rëy su bokkee ci may yi ma yàlla may dinaa ko am ngeen déglu bu baax kàddu gi mbox bu bokkee ci may yi may yi ma yàlla may dinaa ko am jamonoy dox ba am doomam du jigéen ju jàng alxuraan ba mokkal bind kaamil boole ca def lu doomi Cheikh Sidiye defutoon muy togg reer bu mucc ayib boole ko kaamil bi andil ko Serigne Touba doom ji tuddal Maymunatul Kubra nga xam ni baat ba mu jëfandikoo muy may bu bokkee ci may yi ku tudd may di doomi Serigne Touba ci la ko yàlla dogal Serigne bi ubbi kaamil bi xool ko bëgg lool na ko la yàlla defaloon Cheikh Sidiye de defal na ma ko tey. waaye may mun na mun a ko mbàkke mun na ko lii bëgg naa ci lool sama xol sedd na waaye am na lu des mun na ko mbàkke lu des mun na ko mooy nga ñëw jàngi ak taalibe nag ah kon ak taalibe war naa rëy lu toll ni kaamilu alxuraan jigéen bind ko Sëriñ Tuubaa am na lu des kon taalibe mat naa xam ni ko ñëwal dem ci soxna Faati Jam boo demee mu jàngale ak taalibe soxna Faati Jam nag bi mu nekkee njaareem ak taalibeem daa yeggoon ci su ma saana toog yàgg mu dégg saxaar gi jóge Touba yuuxu di dugg si njaareem danaan bërit wàcc ci suuf ngir màggal saxaar gi ci jóge gi mu jóge Touba maanaam jën mi xottu saxaar gi saxaar gi rek moom lay màggal ci yëg gib ma nga jóge Touba soxna Fatou Diop boo masaan wàcc ci saxaar gi ñëw ci kër gi boo ñëwee buur ngay doon loo wax loola la ñuy def képp ku mujj jóge Touba boo ñëwee buur ngay doon ci la ko yabaloon ni ko ñëwal mu dem jàngal ak taalibe ak taalibe Cheikh Ibrahima Fall daf ñu koo jàngal moom maam Thierno maam Thierno de daan def bu ko Serigne Touba masaan woo mu yéex wuy ji di bataleeg lu ne mu nekk daal ba mu ba mu mel ni waaju guddi. te ku ne xam na ni mu xamee Serigne Touba waaye buñ ko bu ko Serigne Massane woo mu yéex a wujj te loolu mu ngi ko teg ci ak taalibe Cheikh Ibra Fall nekk ci garab ni ko wuyu Serigne Touba du nekk di wàcc ci garab bi day xabarti ko ci kaw ni dérivisu da wujj Serigne Touba ñu ne ko Cheikh Ibra yow day dañoo gis boo boo xasee dégg ci sa nopp kaay wuyu Serigne Touba amatoo jàmm yow daal boo nekkee ci garab sax doo fa nekk di wàcc tubaabal da ngay xabarti ko ci kaw ni dérivisu suuf. lu waral loolu mu ni leen bu ma xasee dégg ci saa nopp bi kaay wuy sëñ bamba gisatuma lu gën a farata ci kaw suuf lu dul wuy sëñ bamba ñu ne ko ah Fall wala nangul nan la sa taalibe ñëw ci maam Thierno ne ko noonu damaa gis bu la ko tedd ki ñu ko teg nga yàqoo ji te xam lu waral loolu mu ni leen su ma sëriñ Tuubaa woowee su ma demee su ne ma Ibra Faati bul dellu kër ga du ma dellu damaa yegg ci Serigne Touba su ma demee bu ne ma bul delluwaat kër ga du ma du ma du ma dellu moo tax xàmmewuma sama borom woo ma ak sëriñ Touba woo ma sama borom bu ma woowee damay waaj batale dem wuy ji ko Serigne Touba bu ma woowee ma batale dem wuy ji ko ndax su ma dellu si waatul mooy tax ku ci nekk jàngal la dëgg dëgg fa mu teg Serigne Touba ak lan mooy ak talib ak taalibe mooy bul fàttaliku sa jëfi démb xam nga li trompe toujours ku mel ni man Modou Mbacké mooy soo xaw amee ñetti jëf yoo masan yoo mën a yoo mën a lim démb rek sa diggante ak sa sëriñ daanaka dangay ngay jàpp ni rek loolu doy na Cheikh Rafal dañoo jàngal ni murit du wàcc ab taalibe du wàcc dafa am benn bis doomam ji yox sëriñ Modou mu Fall sëriñ Touba sant ko ab néeg ci njaareem mu di ko liggéey ba toll ci teg ñax mi Cheikh Rafal yëg ko ni xaaral ma ñëw barkeelu ci liggéey boobu ñu sant sama doom ji ñëw ne Modou Moustapha looy def noonu mu ne ko am mbàkke xanaa ku baax ke de moo ma sant ma di ko liggéeyal am néeg mu ne ko xaaral ma ñëw barkeelu ci liggéey bi ci kaw ñu jox ko ñax mi moom Ibra Fall muy teg ñax mi di wërale ci néeg ngir barkeelu ci liggéey bi sant doomam ndax moom fu mu dégg jëfi Serigne Touba du ko nangoo bàyyi kenn Serigne Touba yëg ko ànd ko tàngoo ni tëll ni ko Ibra Fall looy def noonu mu ne ko Mbàkke xanaa barkeelu ci liggéey bii nga sant sama doom bi mu ne ko wàccal bàyyee ko ko santuma la ko moom laa ko sant Cheikh Ibra Fall ni cëpp di wi cax ba bu wuti buntu kër gi naan a cam su ma wóoroon su ma juree doom suñ bàmb liggéey loo ko bàyyi ma du ma am soxna bay am doom koo xam ne sa doom ji nga jur moom nga yegg ci fiiree ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa nu nga ko ko bàyyee kon wane na ni murit du wàcc ab taalibe du wàcc mag dañoo yeggoon ci seenu taalibe ba xam ni sëriñ Tuubaa lu mu laal bokkut lu mu laalut danaan def bu masaan bind xalima gi bu taqee walla bu ajoo fomp bu dee yenn bindkat yi dañuy wut ab morso di ko ci fomp sëriñ moom mbubb bi mu sol ci la koy fomp mbubb mu fees dell ak i fomp fomp fees dell ak fomp fompi daa góor gu yeewu mel ni sëriñ Moustapha Lo góor gu yeewu mel ni sëriñ Moustapha Lo dafa mel ni day dañ ma junj ni ma waxtuwaay yi bëgg a jeex kon day dana dana yéeme lool ndax maa ngi ci taalibe bëggoon a wax li koy maye waxtu yu bëgg a mat waaye nu ngeen ko bëggee rek sëriñ bi di bind góor gi ñëw ne ko man day sa mbubb mi mbàkke dama ko bëggoon a barkeeloo sëñ Tuubaa ne ku bëgg dara da ngay def dara dama ci jabe nga wuti mbumbu mucc ayib nga andi ko dem xotti mbumbu baax jox ko téyeer bi daan ñawal sëriñ tubaa ci njaareem mu ñaw ko ñaw bu rafet mu andil ko sëriñ Tuubaa jox ko ko sëriñ bi jël ko di ko tam-tamal ne ko ah, xanaa lii war naa seer de fu xayma bi toll muy bëgg a wax Cheikh Ibrahim ni bërit ni ko déedéet mbàkke ba nga ko laalagul la amoon njëg waaye bi nga ko la amatul njëg lu jaar ci loxol Serigne Touba kenn mënuta koo xayma moo tax sëriñ bi mas na am fonk na alxuraan lool ba am génn waaye boo xam bu masaan bind kaamil da koy dem jox waaju baax mu mën alxuraan sëriñ bi woolu ko ni ko dama dégg ñu ne ku mën alxuraan nga mu ne ko waaw ñu ngi koy wax de mu ne ko taril ma barab sàngam waa ji ni rateet foofu mu ne ko taril barab sàngam fu mu ko tuq rek mu tari foofu sëriñ bi ni ko nit ñi wax nañ dëgg de kon nag li des mooy damaa bëgg nga bindal ma kaamil bu rafet andil ma ko mu dem bind kaamil mucc ayib andil ko sëriñ Tuubaa sëriñ ba xool ko bëgg ci lool ni ko boo masaan bind kaamil lu lay jox mu ne ko ñetti dërëm mu ne ko foo dëkk mu ne ko kajoor mu ne ko fa nga dëkk ku fa gën a jege ci fere yi mu ne ko am na fa sax taalibe bu ñuy wax Cheikh Massamba Diop Sam day soreewuñu mu ne ko boo demee jox ko leetar bi bindal ko leetar ni ko seex Cheikh Massamba Diop waddal ma kaamil boobu yi ndaw li ñëw jël kaamil bi jël leetar bi jox ko ma sàmba mu xool gis Serigne Touba ni ko woddal ma kaamil bi mu dugg ci biir génn ñetti junni ñëw jox ñetti dërëm lañ ko daan jox taalibe Serigne Touba ci ndigalu Serigne Touba mu jox ko ñetti junni ci jamono jooju góor gi jël xaalis bi def ci poos bi jël kaamil bi nag di ko jox seex ma Massamba Diop ne ko ah kaamil yi day baax na man de mbindum Serigne Touba doy na ma sëkk kaamil Cheikh Massamba umpalewul kaamil ni mu toll waaye ma ngay wax jaam ni mbigum sëriñ Touba ak ndigalu Serigne Touba fi ñu ko toll loolu lay wane. moo tax ak taalibe dafa am solo sëñ Mor Talla Fall dafa nekk ci njaarim bi jàng ba mu yàgg maraaxib la doon jàng ca kaw ba mu yàgg sëriñ bi ànd ko tàngoor ñëw ba tolloog permi fëgg ko ne ko ana kooku mun na ko mën a mun na ko mën a day yokku laaj mun na ko mën la Mor mu Fall ko xaaka saa saa borom digal na ma nee na nga wax loo bëgg ñu defal la ko mu bëgg xalaat comme ni jamono ji rek bëgg xalaat ay itaas ak yu kenn xamul bëgg xalaat sëñ Tuubaa dégg ko ci ne ko neel taalibe gu nangu mu ne ko taalibe gu nangu sëriñ Tuubaa ni ko defal nan la ko loola la ko sëriñ Tuubaa tànnal sëriñ Saalihu Mbàkke mas na ñuy jàng ci këram muy jooy jooy yu metti biñ noppee mu woo leen ba ñëw ñu doon jàng xasida ñi leen sant naa leen gërëm naa leen ndax defal ngeen ma tey loo xam ne moo ma gënal doon doomi Serigne Touba ñëpp dar seen gémmiñ xam ne loolu war naa ni mu ngi leen sëriñ Touba waxoon na ni bokk na ci mandarga murid saadex ñuy jàng samay xasida ngay jooy jooy yi ma doon jooy ñu gi ma ci nuru murid saadex moo ma gënal doon doomi Serigne Touba kon danañ gis bu baax ak taalibe fi mu tolloon mag ñi moo tax Serigne Touba da daan faral di toog toog yi nu suñu abi bu woow yi ku min suñu abi bu xam na ko mu xaw a copp noonu bu masaan julli tamit pare day copp yor kurus gi Serigne Touba da daan toogee noonu di faral di raay bopp bi naanaa ah, Ibra Fall di gërëm naa ko Ibra mag ñi def benn délégation benn suur ñëw ni ñun de Mbàkke dañoo bëggoon daal nga wax nu Ibra Fall lan la def lu ñu deful lan la la jox lu la joxul ndax jàppoo Ibra Fall gërëm naa ko Ibra Fall gërëm naa ko rek ndax loolu jaaxal na nu Mbàkke mu ngi leen Ibra Fall joxuma lu ngeen ma joxul waxuma lu ngeen ma waxul li ci nekk mooy Ibra Fall damaa teg fa ma yàlla teg Ibra Fall teg fa ma yàlla teg ndax xam ngeen loolu ñuy wax menn xel ñu ne ko waa Mbàkke mooy benn bët bu nangu benn bët bu bañ nii ne ko mooy ku wéradi wéradi xel mu ne leen déedéet menn xel mooy Ibra Fall xelam menn la maa ci nekk man Ahmadou Bamba kon fi ngay teg sëriñ bi dafa am solo sëriñ bi fi nga ko teg rek foofu la lay fekk moo tax taalib bi kooku muy wax bokk na ci li koy maye lii ñu ci muy xasiida yi xasiida bokk na ci li gën a gaaw a maye ak taalibe sart yi mu laaj nag boo ko dul def mën na laa dëxëñ sànni la ba nga defa ni yow rek yaay mbi ci kaw suuf da ngay dem ba mujj sax dangay jàpp ni sax xalifa général de Mouride yéen a xaw a tolloo xasida dafa am ay charte soo koy jàng danga war a jiital tuuti alquranul karim ubbeeku ko xasida boo koy jàng da war a jàpp ba sell xasida da nga war a jël lim boo xam ne àttan nga ko yem na nga jël ko saxal ko bis bu set mu doon sa liggéey waaye xotti tey maraaxib xotti muxaddimaat xotti bisri bu tey nga jël bi loolu bokkul ci li dimbale taalibe bi ci xasida yi jëlal li nga xam ne danga ko laaj sa sëriñ mu jox la ci ndigal wala li nga xam ne sopp nga ko ci sa xol muy loo àttan bis bu set nga yanu ko saxal ko te soxlawul sax kenn di xam ne yaa ngi koy liggéey yamaleel ku la ca fekk ak ku la ca fekkul di jiital alxuraan di jàpp di ko jàng wax na ni nag boo koy jàng boo mënee taxaw moo gën soo ko mënul toog mën nga toog xasiida dafa bëri lool ay jariñ xam naa dafa bëri lu ma asaf ci waxtaan wi ñëw ci xasiida yi bu ci nekk ma am ay benn benn yu ma ci yu ma ci indi wax njariñ yi nga xam ni moom lañ ci tënk ngir ku ci nekk xam ni xasiida yi ndekete buntu la xasiida bu la dolliwul ak taalibi dolliwu la orma dolliwu la joxe cër ci sa mbokkum taalibi ci sëriñ bi xamal ni war ngaa xoolaat saw jàngin ci xasiida ya kan moo leen gënoon a mën a ñime xasida ku leen ëppoon ak taalibe xasida yi bokk na ci ay njariñam alaaman sëñ Abdu Xaadir Mbàkke nee ku koy jàng Moustapha mooy teg loxoom ci sa bopp ba keroog ngay noppi boo jàng alaaman yónnent bi mooy jël loxoom teg ko sa bopp ba keroog ngay noppi sëriñ Basiiru mu ko daan jàng dafa daan jël ab siis teg ci kanamam sëñ Fàllu ñëw ne ko bàyyi sikkin looy def nii yow de booy jàng xasida gi da ngay jël bank teg ci sa kanam jël kaala lal ca mu ne ko bu may jàng Moustapha mooy toog ci bank bi jàkkaarloog man moom laay màggal maraaxit kër gu mu nekk dëkk boobu bu fa am néew jaaree suñu borom jéggal na ko waxuma ko génne ci néeg ba de waxuma ko génne ci kër gi waxuma loolu de dama ni kër gi maraaxim nekk ne néew ba jaar ca dëkk ba jàll suñu borom jéggal la ko ajaaba garde corps la sécurité la yaa ngi dox ci mbedd mi ragal ñu dóor la jaasi nangu sa alal ragal ñu dóor law yet ragal ñu jam la paaka te xool ak ajaaba nga xool ba xam garde corps la sécurité la si nii dafay tee nit ki dof boo koy jàng doo dof te liggéey bu ñuy liggéey jëm si ci yow moo xam fas la wala lu mën a doon suñ borom dali ciy musal te day taxam mucc ci lu lépp lu bon di taxam mus ci lu baax booy jàng si nii di mus daf lay yomb te lépp luy pexe mu bon suñ borom dali ciy musal ik fi nii tata la tata maanaam xasida yi nga xam ne ñoom dañu am yàllaahu soo koy jàng da nga mel ni ku tëdd nelaw am ponkal yor aw yat tiim la di la garde ngir bañ ko la laal mais bu dee ik fi nii dafa mel ni nga nekk ci gannaaw miir bi tëdd fay nelaw lii lore nekk fii miir bi dox seen diggante du la gis balay lool Sëriñ Tuubaa daana def ku ko mokkal mu may la aw fas digle aljanna suñ tuwaa daana ko def tulfatul mutadarriin day taxa falu ci yàlla maanaam boo demoon ba ñàkk daraja comme ku mel ni birsiis ak balxaam bi leen suñ borom alakee suñ dajee woon a xësiida googu di ko jàngaat suñ borom delloo leen seen daraja julfatul awa dafay tax a set ay bakkaar day mel ne gis ba nga juddoo woon ci ñàkki bakkaar wasilatu rubboo sëriñ fàllu nee na ku sa aajo fajwul ba noppi mun ko am ku sa aajo ba noppi mën a am wasilatu rubboo rabbi bi maa yasrahu dafay gaawal ñaan nga nangu soo bëggee loo ñaan yàlla mu nangu saa yoo xëyee rek dóoral rabbi bi maa yasrahu moo tax mag ñi daañ ko tëjee soo xëyee jàng ko asamaan ak suuf bu doon tampaloo suñu borom musal la xaw ma kan waaye yow dana suñu borom dana la seppi teg na le doo la jaxas asamaan ak suuf comme ni nga ko defoon ca nooyin wala luut su doon amaat tey ngay jàng xasida googu suñu borom musal la asmaaw taxlil kër gu mu nekk rab du fa dugg jinne du fa dugg seytaan du fa dugg jës bu dafay xëcc ab xol jëmee ko ci yàlla mawaahibu boo koy jàng nit ñi saa yu xëyee dañuy dem wuti njariñ booy jàng mu waay bu njariñ mooy daw wussi la nit ñee wuti njariñ waaye njariñ moom mooy ñëw di la wussi muxaddimatul abda boo koy jàng saxaaba yi dañ lay bëgg yonent bi bëgg la nga nekk xaritu saxaaba yi nekk xaritu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawul mahfuus soo ko mokkalee kenn du la laaj sa bàmmeel jaawartu boo ko mokkalee faatu moo la te dugg aljanna ci laa jeexale génn góor benn naar dafa ñëw ci sëriñ bi ñu ko man de damaa dégg ñu wax ni dafa am sa xasida goo xam ne daal nee nañ ko ko mokkal demal janna naar bi def ko gëmu ko daal dégg na ko ñu koy wax gëmu ko parce que loolu dafa yomb ci moom mu ne ñu sëriñ bi dégg naa sa xasida goo xam ne ko ko mokkal demal janna sëriñ bi ni ko soppil nañ ma saay wax de naar bi naa yaa xay xamoon naa ko loolu daa yomb lépp mënta nekk waay dafa ni sëriñ bi dafay dafay conteste sa wax ja mu ne ko waxuma ak xasiida de aw bayit laa wax mi ngi ci sama xasiida ko ko ko mokkal dem aljanna bayit woowu dama leen laaj ko ma sàmm ba aw ma jot damay liggéeyal sama borom ñu mu leen bàyyi ko fa mooy mi ne ilaa yustaxaabu an il kaw ni wa fii fustu benn bayit woowu ku ko mokkal dem aljanna rawatina xasiida gi loolu yëpp nag nga xam ne moom lañ tënk ci taalibe gi ak li koy maye di xasiide yi lan moo taxoon nit ñi daan sonn guddi ak bëccëg ana luñ bëggoon ci Serigne Touba ci loolu ci lay andi benn xissa mën ko tëje waxtaan wi ndax mel na ni waxtu yu jot na sëkk gis nga mag ñi coono yi doon jàng jànkonteel di sonn ci Serigne Touba di ko liggéeyal dafa amoon lu taxoon Serigne bi dafa am benn bis sëriñ Fallou Mbacké am toog ci mbooloo di waxtaan. mbooloo mi ni tirim am ku nekk catul mbooloo mi di ko xool ba mu yàgg mu wax ci xelam ni ah Mbàkke man de la bëgg mu lu ma ci góobee gar ko sëñ Fallou jékki-jékki fott ni ko ana loo wax noonu waay ne di gees ñu naan waaw ku sëñ Fallou liy wax ñu joxoon ba xam ki sëñ Fallou liy wax ñu ne ko jugal wuyu ndaw li jug di jékkal ba ci kanamu sëñ Fallou sëñ Fallou ni ko la wax noonu mu ne ko Mbàkke waxuma dara mu ne ko ah kay wax nga. ni waxal li wax sama xel ñëpp dégg mu ne ko am ah, mbàkke man de dama ne rek maa la bëgg bu li ma ci góobe gar ko suñ fàllu tàcc ko ni ko doo góob doo gar waaye te foo toll di kon mel na ni jëmm joo xam ne ndegam boo ko bëggee sa lépp yi boo ko liggéey sama xel war naa dal dafa am benn bis ci ci ci ci gabon benn tubaab sëriñ bi yor téeram di jàng téere yi muy liggéeyal borom benn tubaab ñëw di xëccoog moom téere bi ngir tasaare téere yi ni ko Moussa ko waxe bi ñuy xëccoog moom téere bi sëriñ bi jàpp tubaab bi jàpp ñuy diggante ba mujj ñu tàmpangante seen ñaari dënd tegante seen yaram laalante sëriñ bi ba ko mu daanu jële ca feebar faatu ñu am ay fan sëriñ bi tëdd guddi gis ko mu nekk ci biir aljanna mu laaj suñu borom ni ko jëmm ji ma jotee joteeloon ni ko yóbbu aljan mu ne ko bi muy xëccoo yow téere yi seen ñaari yaram laalante gën laalante moo tax wërta dem sarawa ndax sa yaram wut laal du dem sawara loolu ko yóbbu aljan kon Serigne Touba kenn du moom sant nañ leen gërëm nañ leen waxtu waxat wi tax na ni ñu ko tënkee mënul fës bu baax a baax waaye xam ngeen suñu yéene yàlla nañu yàlla boole dimbali fay nu ci barke Maam Mor Jaara lu ci jub addiyee borom saam la lu ci dëng ci man la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنام